jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu bu baaxa a baax a baax di am mbégte kontaan àndaat ak yéen tey nag ñu ngi waat arène nationale si beneen affiche diggante ndigal ak Tapha Tine bu jàmm gën ñu ànd ceeg Diourbel production muy la 14 mai fecc Iba Mar Diop diggante Zal Bambay ak ki nga xam ne mooy booy jóob bu yëmbal booy yëmbal bu booy yëmbal boog di moins muy ñaari xale yoo xamante ni kenn dootu laam-laamee ci réew mi waaye Diourbel production de see toftal loo xamante ni nii muy diggante ndigal moo nekk sama droite Tapha Tine bu gën nekk sama gauche ndigal dañ lay jox nga daal di nuyoo rek ñu daal di digal ma bisimilah bisimilah ina wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jaroo rek sëñ Cheikh Ibra gàcce ngalaama naaru maam Karim sama yaakaar kii nii <laughs> Tapha Tine mi daa umpule rek bilaay kii nu def daanu kii nii nu mu def daanu te bu daanoo yem ci na sant yàlla bilaay wallaay daa xamul nag bu daanoo yem ci na sant yàlla damaa xamul moo tax billaay walaay nu mu def daanu. daan ko ba pare nga ne sant yàlla te lenn da ngeen a gis nit ba dem di laajte laajte waan ñëwaan na adversaire mi da nga fexe ba ngor gi nga am ba ñëw fii nang ko jaayante ba ñëw jouru làmb ja bul daw maa la ñaan lool bu dee Baay Faal nga yow ci li ngay wax na jaayante lool ba ñëw bul daw. nuyoolu moom. waaw eh, ah, mu jox ma mu jox kii waaw moom dégg nga li mu wax. mais nuyoo nag parce que dégg nga li mu wax. billaahi mina seytaani rajiim bisimilahi rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur ñaanal sama waajur bu jigéen yàlla na ko yàlla xare àjjana fu daw si gën a màgg ak képp koo xamante ni mooy loolu waaw du nuyu mafia bu nekk fii yëpp du nuyu gars yi bàyyi ma kenn xam nga di la nuyu bu baax baax baax baax moom xalaatam la wax rek kii lu ma def daanu yow kii jamonoy mari maar la dafa yàgg yamul si daanu de nee na boo la wax rek kii ba muy bëree arène boobu bëree guma sax arène mooy jamono la nga ni mari maar lu yàgg kii xool ko xoolal leel bi fii boo xoolee xam ne mag la eh. yow xool ko xool ma billaay wallaahi maa ko ëpp doole maa ko dàq nee na man lu ma def daan tu ma yemee si daanu jël waaw na kii dafa woote fu mu dëkk moom Jurbel ñu ne ko fii du baax te moom xam na ma koy wax bu baax a baax moo ngi Marimar jamonoy Marimar xaw ma koy Marimar ah. ak Sëñ Bamba Marimar de benn kii film bu yàgg sax kii fi muy wax dañ faa woote ah. Cheikh Ibra Fall laa la waatal moo jël téléphone am woo ma ne ma diw damaa woo pour seen combat yéen ñaar ma ne ko waaw man ak moom ñooy bëre da mu ne ma damaa ban digal la mana ne ko man la xam lan la ma wax dama siy neutre combat boobu kooku ba ma koy xam yow xamoo ko. kooku la kooku kooku la kooku la non kooku wax fii xam naa ko bu baax barki Serigne Touba. kooku la la kooku la la. kooku ab maaraal maaraal la. ab Serigne. ab Serigne la. barki Serigne bu baax a baax Père Robert sant Gueye maa ngi nuyu bu baax di nuyu waa Diourbel yëpp xam nga bàyyi ma ko kii nii lu muy wax nii bu ko waxee moom nee na moom mu koy xam-xam ma ah parce que juddoo ma yow da ngay yàgg yow da ngay nangu da ngay na mais lan mais lan ngeen a la 14 mai Iba Mar kii ak ku ma seen écurie yow laay waxal seen écurie ñoo fa war a bëreel leeru alxuraan xam nañu du yow ñoo fay gar 5 kilos ñu def leen mbër te a jël Seydina Mohamed xam na ne nii ak waxtu bii nii nii léegi ñu julli tisbaar kii maa ngi moom du yoonu làmb billaahi wallaahi bu ma ay zos laay bëreel ay aada paas nii ni nii nu mu tudd Bébé Bismi man ñooñee sama adversaire Bébé Bismi billaay maa kii du yoon làmb ah. trois combats laa bëri juddooguma demaguma fenn si làmb demaguma dara caatu puyool moo ma daan nee ku caatu puyool daan ko xool wallaahi di xam ni roy dunduroog piir maa la pour doole maa la daa ko bëri bokku ñu yoonu làmb la sarax la woon addiya la woon génnee naa ko ñu yoonu làmb la 20 juin la woon boobu du ko fàtte a métti sama jàppal ne ah la 14 moo lay gën a méttiwaat boo ko ñu yoonu làmb nga wax yoonu jàmbur saa boo fa jaaree lu la fa fekk yow. xanaa damay fa xanaa damay damay fa kastalu avant bi di ciblé. tan ne tan ne ma tan ne nga ma ñëw si jour làmb yàlla na yàlla wéral cër yi yàlla kattanal yàlla kattanal la kattanal. ma lay wax lu ñëpp ñat ku ko bëgg a bët di nga nangoo sëgg sikki sikki dëkk. xam lu mu wax de parce que mag la dafa yàgg kii lu muy yow da ngay wax loo xamante ni man duma ma comprendre su ma demee naa ko laaj sa maam boo demee laaj ko sa maam mais mais mais mais bu ta mbooy ko taal taalut boppam man dañ maa taal dégg sa diggante kii yow ku xam yow kan moo la xam ndigal ñaata combat nga bëre yow ba ngay bëre kenn bëre ñaata combat nga bëre limal man trois combat laa bëre yow ñaata combat nga bëre ndigal yokku yokku moo ma tax jël si yow yokku victoire yow bu doon yoonu lamb yow doo ma jël macca ak saba laa njëkk a bëri yow bu doon yoonu lamb yow tey doo ma jël parce que yow ba nga dalee làmb ba léegi. ma woo yegg yoonu làmb la ak ñàkk yoonu làmb. sama yoonu làmb si lay leere wuy sama yoonu làmb si yow lay leere noo def daanu naa la duma doog laa daan. doo duma doo laajal Zanzala mu mujjee bëre fii. waaye na Zanzala dem ne nga ay Zanzala. mais ñeme ngaa samp jaaga si diggante kii yow. barki Alxuraanul Karim kii fu jàmm yéen du ma fanaan. képp ku taxaw man na tapé seetaan képp ku taxaw ak man ba arbitre sifflé da ngay arrière. ànd ak jeex toujours kii ñeme na la de ñeme na la alxuraan day neexal nii rek billaahi wallaahi kii baat du bisimilah du taxaw barki Ibra bu taxawee samp jaaga wallaahi asim nga wori mais wéef ah. sax ngay nga may carte gàmbi laay yow doo 100 francs bu ma la tàncee nga xam ñaanu ma ko yàlla doon yooyu du waxu nit ay 100 francs eh, man doomu aadama la waxu nit ak yooyu yëpp amu si yow nit tey boo bu ma dul woon nit tey jii du ma taxaw fii di signature yow dégg nga sa waay dañ ko may di vingt combat ma daan la vingt jël yu bokkul billaay wallaay naa la xamal leen de billaay rendez-vous le mai léegi nag day may ngeen tàggoo ndax yaakaar naa ne bi. non may ma production. dafa am noo xamante ne ne woote leen mu gaaw. woote mu woote ba pare moom nga a tiimale nga woote may sëñ maa ngi woo waa ñaatali yëpp ak sama waa dëkk waa pay pay waa mbaje sookaanu mappalaan paaleel jooreel njaageen bu njaageen bu ndaw ak mbaje njufeen ba kër madiam ndimbu seew ngàcc maa ngi woo ñëpp di woo sama grand yi nekk di foncé ku ci mel ne Assane Ndiaye Bawol maa ngi woo Alaaj Ndiaye Baye Laat Diouf Baye Bas ñëpp maa ngi leen woo Fallou Fall sama grand frère Kastor ak Modou Modou Ndiaye ñëpp maa ngi leen woo ak Serigne Gueye sama patron ñëpp maa ngi leen woo ci combat bi ma jàpp gan gi gan gi yéemuñu bilaay di woo waa Touba sama waa koñ waa alom ga yëpp képp ku dëkk Touba Ndiarème alom ga maa ngi lay woo mafia bu ndaw bi waa eh, xam nga man lamb feesu sa mbët bilaay yow feesu yow làmb yow feesoo sa mbët pour lu dul làmb sax feesoo sa mbët xam nga lu fees sa man ku ma jaay bàyyi faal du nuyu sama mafia bi bu baax baax ak lu ñëw lu ñëwul ñoom ka ñoom waaw ñoom laay waaw ñoom jaw ñoom masaar ak Mbacke ak mafia bu ñëw du nuy sama waa koñ jàmm gën gi yëpp xam nga si ko ba suuf di nuyu xam nga waa Casamance bal kii biñ kii Sédhiou Indiane Kapara di la nuyu baax baax foofu dem nañ fa ay bu bëre ba di ñaan paa nañ ma ñaanal bu baax baax baax du ñu moom fu mu jugee Bawol lu mu tuddati sax Jurbel du ñu woo port rebel bu baax mu jàpp si mu ñaanal ma comme mënu see def ay fos yooyu na ma ñaanal bu baax defal ma ay muslaay ñu jàpp gan gi di nuyu waa Tiwaawan nag bu baax baax ak waa Touba Mbacké Tiwaawan di wax nañ mobiliser bu rëy fa laa jàngee fa defee lépp lépp waaw gan gi bu ma ko tàncee sama tànk laa lay jox nga def si loo ma jàpp la daan la baal baal baal sama tànk laa lay jox nga def ma jàpp la daan la mbokk yi rendez-vous la 14 la ak Diourbel production fee stade Iba Mar kon ñu joxe leen grand combat bi Zal Bambay la ak Boy Yëmbal kon rendez-vous le 14. waaw